président de la république. nattangoom bii di Paul Kagame da ko lancé ab challenge da ko yónnee ay kàddu ci ne ko na wane ci ni ñuy raxasoo. je relève le défi de mon cher mu jóge ci jël ay matuwaay yu am am solo ci population sénégalais bépp ba sax ñu nekk actuellement ci état d'urgence ma dama ko ci dollil beneen challenge di ko ñaan nag mu relever ko mooy mboolem àdduna bi am nañu jaaxle am nañu tiit jaxasoo nañ am nañu àgg ci ne. mboolem lu ñu xalaatoon mboolem lu ñu amoon ci ay jumtuwaay jeexal nañ ko te mënuñ ci yëf yi dara nun dañoo am leneen loo xam ne dañ ko cee war a dolli mooy delloo nit ñi ci yàlla challenge boobu faw njiitum réew mi da ko war a jiite woo ci ñëpp. ñu maase ci tuub balon tey ak di sakki sarax te yàlla rek tax fépp foo xam ne fu ñuy teg ay ay ay ay folklore la mbaa am fo moo xam ne ñuy seetaan la wala lu ñuy déglu ñu dindi ko maase delloo suñu bopp ci yàlla ndax yàlla mi am kattan ba dugal jàngoro jii nga xam ne ci àdduna bépp la ko wàccee te benn bët mënu koo gis bëtub kese ngir dafa tuuti benn bët mënu kenn du gis ak xetam wala mu déggu yëngoom ngir dafa tuuti te teewut mi àdduna bépp ngi taxaw ne dañuy def guerre mondiale guerre ak koo gisut guerre ak koo déggut guerre ak koo xam ne doo ko doo la xeeñ du guerre bu yomb allahumma ij'al lana min kulli hammin faraja wa min kulli diqin makhraja wa min kulli bala'in afiya ya akram al akramin kenn doo nga am kattanam mooy ki nga xam ne ni mu ko sàkkee mu tuutee noonu la sàkkee yu ko ëpp fopp te loolu wax nañ ne àdduna euh, bi li ci yàlla sàkk ci ay ay dënd mu ñuy wax ay planète moo ëpp nombre de fépp suuf yi univers bi boo ko doon mesurer kenn xamul ñaata milliards d'années de lumière la te benn atu lumière bu nekk 9500 milliards de kilomètres la adduna bi am na ci distance yoo xam ne kenn xamul nu mu toll suñu adduna bii ñu nekk di ci dund boo ko dugaloon ci biir univers bi day seey comme bu poussière lay toll yàlla mi am kattan ci sàkk lu ndaw noonu la amee kattan ci sàkk te bis bu ne ñoo yëngu ci ci ci science dañuy wax ne li ñuy wax supernova day am mooy ay àdduna yoo xam ne day dem ba seenu dund jeex mu explosé toj yàlla am na kàttan ci jële fi àdduna bi te du ko wàññi dara ndax jëriñuñ ko dara bu ñu xamee loolu nag dañoo war a delluwaat ci moom xam ne lii lépp moom la te buñ ko tuubee jéglu ko mu jëlee ko fi ndax ñëpp maase xam ne lii ñuy def nii diggante euh, temporel ak spirituel ñoo mas di ànd li ñuy def nii xëy na mooy lu temporel li spirituel mooy ñaan yi nga xam ne mooy zahir ak batin foo fekk ñooy ànd challenge boobu faw njiitum réew mi da ko war a jiite woo ci ñëpp